jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun dañu seetaan ci seen émission bii di Touba ma yónni ngeen di ko ànd ak seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll samedi bu jot euh, fii ci Touba ak li ko wër mbokk yi ginnaaw bu ma leen nuyoo jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi topp ci euh, semaine bu jot ci Touba ma yónni maa ngi leen di nuyoo waat foo xamante ne bii nuyoob sant yàlla la waaye du nuyoob njàmbat nuyoob sant yàlla mooy tuubaa daf maa yeeyaat na ma kat daa am fu ma la yónni woon te ba ma la fa yónni njàmbat moo taxoon ma yónni la fa la nga doon jàmbat nag bu saafara wa war nga faa dem ne jaajëf la ma doon jàmbat saafara na bokk yi fii ma taxaw mooy tëli alhaaji Mouhamadou Lamine Baara bi jógee ci route nationale bi jëm si marché Ocass taxawoon naa fi le 30 octobre 2023 euh, wanoon leen mbedd mi sama cameraman dana leen ko wanaat jërëjëf mbokk yi ñoo ko gisandoo mbedd maa ngi noonu lii laa fi fekkoon waaye tey jii nag di le 2 décembre 2023 Touba xëy yónni waat ma ne ma fa ma la yónni woon njàmbat kat boobaak léegi weer la ak ñaari fan daa mel ne njàmbat la saafarawu na ndax ña ngi koy defar bi ma ñëwee mbokk yi laaj naa ki ma fekk mu ne ma waa ENANZIN ñoo koy defar ci turu état kon damay wax ne kon jaajëf ndax kat kuy wax ñu dégg la rek nga bëggoon. te fii dama ko jàmbatoon muy mbedd moo xam ne baarawu na lu yàgg te kenn amu ci xalaat kenn jëmu ko defar tey jiinag nag daa mel ne état bi dégg na suñu jàmbat loolu ba ñu ngi koy defar kon damay jaajëfal bu baax a baax bokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp ci seen émission Touba ma yónni ci jëf ju am solo ji nga xam ne gis nañ ne njàmbat di dégg nañ ko daa mel ne état jël na décision ngir saafara ko mbedd mi nag route la boo xam ne benn route gënu ko ndax li fiy jaar dafa bari ñiy génne marché Ocass fii la ñuy jaar dem Darou Minam ñuy jógee Daaru Minam fii la ñuy daan jaar dem marché Ocass ca bu la neexee wër ko dem gaar bu ndaw kon ginnaaw boo xam ne fekk naa leen fii ñu koy defar maa ngi leen di soññiwaat bu ñu turnee jëm jumaa ja rikk waay bu ñu taxaw solution bi na doon benn ñu saafara ko kon ñi ngi jaajafal bu baax a baax waa Enanzine ñi nga xam ne ñoo yor chantier bi donte dañ leen a fay waaye di jaajëfal itam waa Ageroute ñi nga xam ne ñoo yor tali yi di jaajëfal état bi nga xam ne ñoo koy defar donte sunu wàll sunu àq la suñu yelleef la it du tee buñ jëfee ñoo leen jaajëf kon mbokk yi seen mbokk taalibe Fallou Galass tey jii moo xëy si waatoon ci buntu kër alhaaji Mouhamadou Lamine Baara nekk premier xalifa Serigne Touba bi ko jëkk a ci ay sët nekkoon ñaareelu xalifa Cheikh Mouhamadoul Fadal yal na yàlla yokk ngërëmul yàlla ci moom doon ko jàmbatal tëli bi ni mu yàqoo woon mbokk yi tëli bi tey jii fekk naa fi waa entreprise bi ñi ngi koy defar kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous ci meneen mbedd ak ci yeneen yàqu-yàqu ak yeneen jafe-jafe yoo xam ne Touba nga koy dund waaye alhamdulilahi rabil alamina bi nga xam ne ñi ngi dégg suñ kàddu te biñ ko déggee itam solution am na ci ñu koy saafara seen mbokk taalibe la Fallou Gala Sill Touba yónni woon ko tey jii ci buntu kër Alaaji Baara le 2 décembre 2023 ngir solution bi nga xam ne tàmbali na fay am yàlla na ko yàlla àggale wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu